mbokk yi ñu seetaan euh, ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci émission spéciale tey ci lii ci penc mi euh, ñu fas ne waxtaan ak euh, yéen xamal leen ak lu ñuy duppee chambre de commerce xëy na bëri na si ay doomu Sénégal yoo xamante ni daal dégg ñuy wax chambre de commerce waaye xëy na parfois lu ñu xam. lan mooy solo bi lan mooy njëriñam ak taxawaayam ci réew rawatina ci wàllu koom-koom euh, ñu bànqaasoo ci wàllu industrie wàllu commerce ak it ay services yoo xamante ni euh, dañu si yëngu euh, lii prétexte bi nag moom mooy ñu ngi fas yéene amal onze ak 12 44e assemblée général bi nga xamante ni moom moo lëkkale chambre de commerce adduna bi yëpp ñi nga xamante ni ñu ngi làkk Euh, kàllaama euh, francais maanaam tubaab euh, francophone chambre de commerce yooyu nag ñooy daje fii ci Ndakaaru pour waxtaan fii def seen assemblée générale xool seen doxin xool seen bilan taxaw ci seen i ay programme ak li nga xamante ni moom la ñu namm ci wàll liggéey bi ñu si nag ànd ak ñuy yëngu ci wàll boobule ma koy tàmbaleeg ci sama ndeyjoor ak ajaratu Oumou Thiam Sangaré maa ngi lay nuyu. waaw di eh, wax na yow yaay eh, secrétaire général bu chambre de commerce bu Thiès euh, ci wet gi euh, Mor Seck nekk euh, juriste de formation di yëngu ci wàllu li nga xamante ni moom mooy assurance Mor Seck ñu lay nuyu. maa ngi lay fay Papis. voilà di jàllit ci ki xamante ni moom xëy na moo fi toogal tey président chambre commerce yëpp ndax moom mooy Mamadou Cissé ñu lay maa ngi lay nuyu yaay président. Euh, chambre de commerce bu Kédougou nekk maire bu Kédougou nekk noonu it nga nekkoon fii euh, député euh, président ban moo ci gën a neex si fonction yooyu. <laughs> non boo jël rek baax na. ban moo ci neex rek wax ñu benn boo jël rek baax boo jël baax na bu ci nekk c'est tu es au service de la population. de la population voilà kon loolu moom mooy plateau bi tey eh, spécial bi kon si wàllu chambre de commerce alors eh, maa ngi koy junj si eh, tambali bi président yow la ñuy bàyyi nga ubbi mhm. pour xëy na xamal ñu déjà lan mooy chambre de commerce. jërëjëf maa ngi lay nuyu di la sant di la remercier mhm. d'abord bu njëkk bi maa ngi leen di jégalu d'abord ngeen permettre ma mhm. ma jaale le président Sidi Lamine Niass. Mm-hmm. Euh, ñëpp xam nañ ne euh, taxawaayam ci dëkk bi euh, gën na àdduna maa ngi koy jaale di jaale Sénégal ñëpp. Mm-hmm. c'est une grande perte pour le Sénégal. et vraiment euh, c'est très douloureux. Mm-hmm. mais ñu jàppee ko ci teg ko ci loxo yàlla. yàlla c'est Dieu comme tubaab yi nu ñuy waxee c'est Dieu qui détient la vie et la mort donc maa ngi koy jaale di jaale njabootam yëpp di jaal Sénégal yëpp. maa ngi leen di remercier aussi di nuyu euh, population yi yëpp donc euh, di commencer d'abord par euh, sama population yi mm-hmm. di nuyu président chambre de commerce yëpp mm-hmm. di nuyu aussi sama xarit yu nekk France ci mm-hmm. diaspora bi xam naa ñu ngi may seetaan ñoom Ansoumane Keita ñoom ñëpp ñoom Yaya Diallo et surtout aussi euh, tey bés bi bés bu rëy la. comme ni ngeen ko xamee Sénégal day accueillir la 44e con euh, assemblée générale de la CPCAF. donc la conférence permanente de chambres de commerce. Euh, africaine et francophone. donc euh, loolu événement bu rëy la donc euh, c'est la troisième fois Sénégal di ko accueillir. Mm donc loolu ñu ngi koy féliciter. et aussi euh, gouvernement bi parce que depuis bu ñu amee euh, annonce euh, organisation bi donc gouvernement bi muy ci taxaw à travers son premier ministre mm-hmm. donc euh, di remercier gouvernement bi ñëpp remercier le président Macky Sall et ñëpp xam nañ ne aujourd'hui quand on parle de développement mënuñu wax développement sans les chambres de commerce mm-hmm. parce que chambre de commerce moo yore économie réew mm-hmm. donc euh, bu ci njëkk bi euh, comme xam naa histoire mu ngi fii mhm. nit ñi xamoon nañ bu njëkk ba sax donc président bu fi nekkoon comme président Léopold Sédar Senghor mhm. euh, du toog semaine te toogul ak président chambre de commerce bu fi nekkoon mhm. donc ci déjeuner ci ci échange parce que c'est l'économie du pays qui est à travers les chambres de commerce secteur activité yëpp am na représentation ci biir chambre de commerce looy tax la chambre de commerce est un levier incontournable pour le développement du pays. Mm-hmm. voilà merci mu nekkoon euh, introduction président euh, Mamadou Cissé alors euh, madame Oumou Thiam mission ma fàttali waaye SG wu chambre de commerce bu bu wala voilà alors mission chambre de commerce naka la impacté si sa expérience ci ci Sénégal mu dépassé sax Thiès de façon globale nan nan lay impacté ci suñu économie. Mm, merci beaucoup euh, bon mission chambre de commerce moom. impact booy njëkk wax mooy que ni que. fii ci Sénégal région yëpp dafa am chambre de commerce. donc on a 14 régions région bu nekk am na chambre de commerce région bu nekk am na chambre de métier. donc ni muy impacté mooy que ni dafa nekk cadre boo xamante ne que ni mooy lëkkale opérateurs économique yi ñu nekk secteur commerce secteur industrie service mine il y a deux ans la ñu seen chambre des mines mais agriculture. chambre de métier aussi tout ce qui est artisanat fa lañ koy euh, euh, saytoo fa lañ koy euh, promouvoir mhm. donc ñu am assise au niveau national parce que xam nga développement Sénégal mhm. dafay jaar à travers les localités par les terroirs mhm. donc te chambre yi gis nañ ne ko au niveau de du Sénégal pratiquement les service services d'appui yu si bare Dakar la concentré wu y a commerce au Sénégal ñoo nekk partout dans toutes les régions te mu nekk këru opérateur économique yi fa la saytoo waxtaanee les questions économique mhm. fa la ñuy joxee les yi fa la élaborer seen projet fa la faciliter seen financement fa la renforcer seen capacité fa la ñaxtoo fa la ñuy défendre seen ñaxtu yi la lay doon souvent ñaxtu yi en général euh, ay question prix parce que dem yaa ngi dégg commerçant yaa ngi kaas ay Auchan xam nga donc foofu daal fa la fa la chambre consulaire ñu mel ni ñoom président laaj yi mm. ñoom ñooy nekk interlocuteur opérateur économique ak ak les décideurs ak état yi mm. donc ñoom ñaxtu bi euh, mën a nekk aussi Euh, parfois xam nga avec les collectivités locales léegi ak acte trois bi. Mhm. ñooy gérer infrastructure bari mel ay marché yooyu. Mhm. donc des fois nga dégg ñu naan yëkkati nañu commerçant yi des fois nga ni yokk nañu lii wala wàññi nañu lii. Mhm. donc dafay nekk seen yëg nga xam ne dañuy waxtaan di jokkalante jébbal ko ñoom président yi ñoom. président ñoom dañuy dugg ci inflation bi dañ koy dañ ciy bokk. inflation la maîtrise de l'inflation. tout ce qui est intelligence économique. Mhm. c' est au niveau des chambres de commerce fa lañ koy waxtaanee fa lañ koy saytoo fa information yi fa lañ koy. waaw mais mais mais lan moo tax on n'en parle pas souvent bu ñu xoolee importance bi comme ni ñu koy présenté pourquoi on n'en parle quasiment pas les chambres de commerce. Euh, pourtant bon je sais pas de on en parle si liggéey mais <laughs> vous comprenez. surtout c'est-à-dire aujourd'hui importance bi mu am oui. Euh. c'est le Sénégalais qui ne connaît pas les chambres de commerce mais les chambres de commerce vous savez l'importance de ces chambres de commerce. Euh. les acteurs économiques qui sont sur le terrain. ñoom ñooy former chambre de commerce. c'est ça donc aujourd'hui s'il y a des problèmes de prix ou bien des problèmes de discussion sur l'économie. les acteurs économiques ñoom ñooy. les membres de la chambre de commerce. Donc, quel que soit Alpha, mhm. quel que soit le problème économique qui peut se poser sur le pays, mhm. je pense que euh, nit ñi bu ñu appuyé wu ci chambre de commerce yi on trouvera toujours des solutions parce que mhm. les acteurs de la vie économique ce sont les membres de la chambre de commerce c'est eux qui fondent la chambre de commerce donc Eh, euh, c'est qu'aujourd'hui, il faut que l'État aussi s'approprie de la chambre de commerce. parce que il faut que état xam ne chambre de commerce tamit moom moo ko moom. Hmm. parce que am na jafe-jafe yu jàpp ne ni ko état war a ŋànkee ŋànkee ko noonu par exemple. ŋànkee eh, eh, ko noonu si looy tax ma lay ne il faut que état bi xam ne chambre de commerce yi ñoom ñoo ko moom. Hmm. c'est des chambre consulaires de l'État parce que problème économique yu bëri boo gisee ñu ngi ñu ngi koy jànkonteel tey. ak askan bi c'est parce que le débat économique n'est pas réellement posé ci chambre de commerce ak acteur économique ak gouvernement bi donc euh, gouvernement buy jël ay décisions il faut que mu appuyé wu ci concernant l'économie il faut que mu appuyé wu ci chambre de commerce yi il faut que les chambres de commerce nekk benn ak gouvernement bi di wax benn wax bi di yëkkatandoo di doorandoo. di doorandoo comme waxee. alors euh, balaa ma ñëwaat si madame. Euh, surtout que dafa am statut parapublic. oui mhm. parce que mun nañ ne ñun ñooy bras technique euh, état bi. Mhm. donc au niveau des au niveau économie locale. Mhm. parce que ñun loi moo ñu créé décret moo ñu régir te ñu ngi placé sous la tutelle du ministère du commerce et des PME. donc suñuy waxee ministère. administration la ñun parapublic la ñu donc ñu ñooy bras technique bi te ni ko président Laaji Cissé waxee ñoom ñi nga xam ne si des élus consulaires euh, ñi leen fa fal mandaté leen fa dañ leen teg pour ñoom ñu représenter les secteurs ñu koy waxtaane donc état dafa par force dafa war a waxtaan ak euh, euh, chambre de commerce yi ba pare état gagnerait aussi di déglu chambre de commerce yi parce que xam nga état su bañee juum dafay déglu population bi à la base ndax chambre de commerce yu am ñoo am impact di dugg si gox goxaat yi te si base bi li am dakaar amul Thiès li am Thiès amul gul amul li am am Kédougou amul Kaffrine nag pour ne citer que ces que ces régions là te euh, région bu nekk avec ses ses secteurs prioritaires région yu région bu nekk am na ses secteur porteurs te secteur porteur bu ne ak li ak ñu koy wax am na plan développement local. Mhm. donc loolu moo tax bari ne que ñun en tout cas ñu chambre de commerce daal bu si nekk si sa si région fa nga ne yaa mën ay activités yoo xamante ni des activités très efficientes mhm. vis-à-vis de vraiment yaakaar naa ne actuellement nii fan il y a deux ou trois ans amoon na ay yëngute ñëpp yëgoon nañ ko. Mhm. mais léegi euh, quand même grace vraiment ñuy remercier au passage le président de l'union monsieur Serigne bu nga xam ne moo ñu fi yebal. donc moom aussi grâce à. Euh, pas-pasam euh, ñoom président laa ji suñu président ñu ànd nga gunge ko. Mhm. ak euh, gëm li mu nekk gëm li gëm nekk askan ñoo ko fi teg moo tax ba tey quand même quoi qu'on dise ñu dellu si waat dañu fulaal. Mhm. si suñu émission dinañ ak yow léegi madame Oumy Thiam alors Mor Seck le temps ñuy wax si assemblée bi dugg si yenn yi dama buggoon en tant que juge de formation nekk un spécialiste en assurance ku wax chambre de commerce wax wax économie. Euh, ku wax économie wax wax fiscalité euh, yow nan nan nga koy tënkee man foofu laa nga commencé yow avant ñuy dem dans le fond du sujet la fiscalité l'économie du Sénégal yow comment elle se présente aujourd'hui merci Papis mais bon nga may ma nag parce que mënuma def émission ci moment bi ñu nekk te hmm. joindre ma suma xol ak suma kaddu si kaddu président jaale Sidi Lamine di ko jaale sénégal yëpp un homme multidimensionnel un homme qui a vraiment marqué sa vie donc yàlla na ko yàlla xarale àjjana. di wax ne il faut que même aussi ma revenir ci question bi nga mujjee posé dafa am solo. pourquoi les chambres de commerce ne sont pas tellement. visibles l'approche de juriste d'affaires que je suis parce que quand même j'ai un peu fréquenté des chambres de commerce en Europe j'ai un peu. Euh, xam naa tuuti chambre de commerce daal pour mm-hmm. sama njàng dama ko ci xaw a def tuuti. Mm-hmm. mais solo bi mu am ak ni ma gisee ni ko ni mu nasaxee Sénégal. dafa ma xaw a jaaxal mooy lii président wax ak secteur général xam nga soo demee ci monde bi yëpp même bu guerre di am chambre de commerce day fonctionner même dans les dictatures y a des chambres de commerce dans les pays démocratiques partout dans le monde am na sañuy wax ne boo demee au niveau ci kaw yàlla si boppam moo njëkk a commencé def commerce ndax naan boo ma defalee lii ma defalee lii. Mm-hmm. ku commerce moo yore koom moo yore donc àdduna. Mm-hmm. ndax àdduna kuy kër kër yi rek comme moo tax ngay kër kër pour mu defar li tax gis ñu ko dafa am deux facteurs négatifs chambre de commerce Sénégal dañ ko dépouiller de ses missions de ses de ses de ses services de ses prérogatives loolu nag yàgg na depuis Abdou Diouf chambre de commerce yi tubaab bi presque bi mu fi jógee rek dañ ko transformer en un lieu de xaw ma politiser la xaw ma dafa paralyser dafa mel ni paralyser wu loolu mooy deuxième facteur mooy le développement des léegi mais li li ñu ko déployer ces missions régaliennes traditionnelles yi nga xam dans tous les pays du monde mooy ADPME APIX ASEPEX tout ça leur mission leur objet c'est des missions des chambres de commerce ça ce sont les acteurs économiques qui doivent avoir ces missions là en France vous n'entendez pas parler même du ministre du commerce amu fa parce qu'il faut laisser le commerce aux acteurs privés le problème de l'emploi bi ñu am ni c'est que le privé ne joue pas véritablement son rôle dans l'économie sénégalaise on a dans nos états kii état yi ñooy gën a intervenir ak de grands projets di ko financé mm-hmm. moo tax tey coow yëpp déggoo ay privé par exemple yu jóg dem par exemple dugg ci problème transformation bi ñu am les ki pour pourrissent gàncax gi yàqu ci àll bi meew mi fruits yi bu bu jotee gisoo benn privé sénégalais bu jóg dem jël loolu te c'était secteur porteur parce que secteur yooyu moo tax ñu articuler benn industrie Euh, petite et moyenne industrie def transformation ci produit gerte gi euh, noix noix d'acajou bi euh, meew mi fruits yi mangue yi yëpp day pourrir fii dañ ko dañ ko war a nekk une influence étatique moo ci laa a ñëw léegi bi ñu ko dépuyee parce que dañ jël yooyu yëpp jox ko ay yeneen service yoo xam nag dañ ko def dans le sous la tutelle sous l'autorité même de l'État hmm. dañ ko dañ ko dañ ko def sous l'autorité de le secteur privé moo gën a apte moo gën a am xam-xam pour doxal économie yooyu nag ñu jëloon ko. mu war a nekk boo demee France chambre de commerce ñooy gérer aéroports yi. ñooy gérer les grandes écoles ñooy gérer musées yi mais loolu yëpp fii ak port yi yooyu yëpp fii dañ ko jël jox ko ay agences. Hmm. donc chambre de commerce finalement lu ko gën a affaiblir aussi mooy le développement l'omniprésence des organisations patronales xam nga yow tey CNES ak CNP ak yooyu nga gën a xam ci chambre de commerce yi alors yooyu c'est des syndicats un syndicat ne peut pas représenter tout le secteur privé comme ni ko kii waxee le syndicat boo ko xoolee léegi rek nga leen su commencé dégg ñuy dem ci région yi mais Dakar rek lañu daan yem parce que un syndicat est un syndicat il défend les intérêts de ses membres alors que la chambre de commerce dafa nekk kër goo xam ne loi moo ko créé pour foofu lañ leen di fédéré foofu lañ leen di xalaatee foofu lañ leen di toggee foofu la ñuy recueillir information économique yi di ko joxaat statistiques yi foofu lañ ko war a yore nga xam ne tey soo doon dem bëgg a dugg Chine. chambre de commerce moo lay jox toutes les informations. mais léegi Mor Seck. te loolu yëpp nag ko dépouiller tey seen chambre de commerce. dañ ko dépouiller justement léegi. pour être radical naka la ñuy def pour mu jilaat euh, euh, standard am yëpp jilaat vraiment c'est prérogative. xam nga il faut radicalement faire. waaw loolu laa bëgg a li may gis. Mhm. xam nga actuellement président ci boppam bi lancé PSE première phase bi ñu dem club de Paris financé tey gis nañu infrastructure yi mu def yëpp gis nañ liggéey yu mag yi mu def yëpp nga xam ne dañoo wax bu doon bu njëkk ba dañuy wax éléphant blanc hmm. état ci mandat bu njëkk bi def na ay investissement yu bëri emploi yu bari bëri créé ko c'est les c'est les projets de l'état structuration structure économique bi ñu bëgg a changé hmm. piliers yi ñuy def nga xam ne mooy infrastructure yu mag yi muy def nii transport ak secteur yu bëri mu koy def hmm. énergie bi yëpp mu koy def c'est pour permettre réew mi décoller mais dañu essoufflé actuellement y a le problème état bi dafa essoufflé dafa dem ba jël capacité ñëpp def ko ci investissement mais léegi nag il faut que président comme ñu wax secteur privé moo war a jël le relais mais pour que le secteur privé prenne le relais il faut que d'abord ñoom ñu fédérer seen force dañu am secteur privé boo xam ne organisation patronale parce que ñooy joué rôle chambre danañ dem sax bu ñu bàyyi bu ñu ko nii léegi presque chaque jour ngeen dégg ñu organisation patronale bu bees bu créé ko suñu deful attention dina mel comme parti politique et ça c'est dangereux parce que un secteur privé éclaté du am du adossé wu. beneen stigmatisation bi xaw ma e, elle se justifie ou pas lañ naan euh, au Sénégal le secteur privé wax la théorie la gën a mën que pratique. Les gens non, parlent plus qu'ils n'agissent. Excusez-moi, ce n'est pas le secteur privé en quelque sorte mhm. euh, qui théorise, qui parle beaucoup. Vous savez, il a une différence entre le voilà. secteur privé, euh, am na différence boo xamante ne mhm. am na entre secteur privé ak organisation mm, professionnelle yi patronale yi. Mhm. donc euh, ni ñi lu ñuy gën a gis organisation yi parce que organisation comme nu mu ko waxee sànq intérêt membre am kese lay défendre. alors que chambre de commerce secteur privé lay défendre secteur privé national et léegi tamit euh, problème bu gën a rëy bi mooy lan xam nga comme ni ma ko waxee sànq il faut que état bi xam ne chambre yi ñoom ñoo ko moom jox chambre yi moyen pour liggéey parce que en quelque sorte dañoo créer chambre yi rek bàyyi leen nii agence yi agence yi yu bëri presque dañu leen waroon loger ci chambre yi parce que mission yi ñu am ak mission chambre yi benn lañu et alors tey chambre yi lu ñu nekk di def actuellement boo xoolee euh, revue économique bu ministère du commerce ci boppam bu génnee ci euh, ci loo xamante ne muy ay services yu ñuy jaay ak accompagner euh, activité économique bi chambre de commerce yi ñoo nekk numéro un. loolu du ñun ñoo ko def. étude bi du ñun ñoo ko def ministère du commerce moo génnee étude boobu et alors que chambre de commerce amuñu benn moyen. amul benn moyen chambre à part la de Dakar amul benn chambre de commerce Sénégal fii boo xamante ne am na sax 100 millions. am na 60 millions kon amul avenir. bon c'est looy tax ma ne la amul avenir finalement wala il faut que am la place. Euh, c'est pas une amul avenir. am na hmm. avenir aujourd'hui on peut pas parler de développement sans développer les chambres de commerce sinon on fera dañuy def sur place. lu tax dañuy def sur place parce que secteur activité yëpp ci chambre yi lañ nekk. comme ni mu waxee sànq am na même jaaykatu caaf sax ñu ngi koy défendre ci de commerce te xamu ko donc léegi l' état bu ñu bëggee dem parce que boo xoolee tey tey jumtukaay yu état def yëpp investissement bu état def yëpp état bi muy essoufflé état bi muy efficient alors am na ay ay ay base yoo xamante ne mun na appuyé wu ci base boobu pour décoller. alors le man je voulais poser une question pour tout le monde. état bi mu may ma tuuti rek ma eggal. parce que aujourd'hui mhm. maa ngi joxe exemple benn d' abord. et maa ngi remercier aussi le président Serigne Mboup muy président union des chambres de commerce du Sénégal muy xamante ne un exemple fii ci Sénégal ci secteur privé. Mhm. lu muy def aujourd'hui ñëpp gis nañ ko te parce que léegi sax lañ commencé xam luy chambre de commerce parce que ñu bëri xamuñu koon mais Serigne Mboup bu mu jëlee présidence union des chambres de commerce la commencé euh, euh, communiquer xamal ni ñuy chambre de commerce jàppale euh, activité yu bëri ci ci secteur économique base bi ci local bi xam nga d'abord lu bëri Dakar rek la concentre alors que dans chaque région am nañ chambre de commerce et aujourd'hui développement bi ci ci base bi la war a jóge ñëw ci kaw mais du jóge ci kaw bi dem ci base bi et tey tey ci base bi chambre de commerce ñoo fa nekk jumtukaay yi ñu am pour développer localement amuñu ko état dafa créer institution yi rek bàyyi ñu nii amul benn chambre de commerce boo xamante ne fii presque am na 60 millions sax mun naa la wax te loolu xam nga c'est un handicap. mieux mieux madame oui madame mieux mhm. euh, agence ak direction euh, générale yooyu ñuy wax mhm. nga xam ne c'est des structures d'appui au secteur privé nekk Dakar direction yu bari ngi Dakar suñu dugg te dans les régions am ay programmes suñu la ñuy ñëw suñu ñëw léegi suñu duñu am duñu kan moo ci a disparaître madame est-ce que am na ku war a disparaître. non si man kenn warul disparaître xam la war a nekk. Mhm. dafa war a nekk euh, comment dirais-je. complémentarité complémentarité. mais mais ah, ah. parce que nu muy nekkee mhm. complémentarité. Mhm. Euh, xam nga agence yi am nañu doole ñu ngi si région yi. chambre ñu ngi si Dakar chambre ñu ngi si région yi mais ni ko président Cissé waxee ñooñu agence yooyu ak direction yi dañu war am dañu war a euh, comment loger au sein des chambres consulaires parce que bi chambre consulaire dafa war a nekk benn. comment dirais-je dafa war a nekk benn benn benn euh, melting pot d'offre de service nga xamante ne que nii agence yi si siy retrouver parce que aussi quoi qu'on dise agence yu nekk ay spécifici dina ko président laaj waxee ñun suñu moyen barewul suñu moyen barewul nag mais nag suñu action bare na mhm. macha allah suñu action bari na. waaw du la fexe am moyen nag voilà. non ñu ngi ñu ngi si xam nga xam xam nga ñu ngi si parce que avant. Mhm. xam nga chambre de commerce yi soo seetloo tubaab yi euh, ñoo ko yore woon. Mhm. tubaab yi bi ñu ko yoree fii ci Sénégal. Euh, ku si mel ni Thiès nga xamante ne par exemple la chambre date de 1889 ndax ñun tëngay te ñu nekkoon ñu jógee fa dem Thiès. Hmm. donc Dakar Thiès Kaolack euh, euh, Saint-Louis ñoom ñooy vraiment ancêtre chambre de commerce yi. Hmm. tubaab yi ñoo ko yore woon. donc te bi ko olof yi commencé jël ristourne état rek lañu doon dundee. Hmm. donc président olof bi ñu ko commencé di ñëw ko je donne l' exemple du Thiès bi nga xam ne moom laa maîtriser. nga xam ne président bi ko njëkk jël moo doon président ñu koy président Alaaji Diagne. moom ba mu ñëwee. œuvre euh, tubaab yi la yeggali ay Mbaye Pall bi mu ñëwee dafa dugg say investi investissement commencé di jënd ay actions di trésor di jënd ay actions si yenn banques yi. di jënd ay jënd ay ay suuf di créer ay centres commerciaux ba chambre commerce Thiès tey plus euh, li ko état bi ristourne bi ko état di jox ak loolu au oh, lu mu bon bon bon mu ngi yokk tuuti ay moyens am. Mm-hmm. Euh, Kaolack Serigne Mboup investissement yi fa def gis nañ ko Dakar kenn waxtul ay waxam loolu te. Euh, fi mu gën a sooxee tamit dañu jox décret boo xam dañuy wax ci biir décret bi chambre de commerce ñoo war a gérer les infrastructures te gis nga tey dakaar ak port port port port bi dégg nga coow li fa am. Mhm. donc infrastructure yëpp actuellement ni pratiquement ñi jotoon ak as néew. AIBD mu ngi cees ñu chambre de commerce Thiès. ñu dara si ay bi alors que gestion des infrastructures chambre de moo ko war a yor donc dooleel boobu ñi nga xam ne moom lañ ko ñàkk doxal ñun ñun lu mu bon bon chambre yi ñu ngi ñu ngi seet ñu tojee seen bopp ci ndax pour vraiment mhm. yokk seeni i seen seen seen kii mais loolu day ñëw mhm. loolu day ñëw dans la mesure où ni ko président laa ji waxee président Serigne bi bu mu faloo si bopp union ba léegi yaakaar naa ne chambre de li nga xam woon ci chambre de commerce li nga xam nañu. ñu ngi koy xam ñu ngi ah, euh, naa la ci tontu. waaw mais bien sûr mais oh, mais dafa benn question bu ñu war dugaat si avant avant parce que euh, par rapport au secteur privé euh, li ñu wax léegi lañuy proposer plus par rapport l' état s' est essoufflé vous l' avez dit léegi secteur privé lan lay proposer concrètement boo si dollee li nga xamante ni moom mooy compétitivité boobu nga xamante ni mooy poser problème. ba les industries étrangères di dominer les nôtres au, au plan local loolu noo koy expliquer il faut changer les paradigmes d'abord d'abord loolu daal ma ci tubaab bi ah, dama <laughs> de formation la waaye li ñu war a def mooy état am lu mu ci war a def comme ni ko président waxee parce que bi ñu defee PSE dafa am ay réformes à part projet projets il y a ñu war a def réformes yooyu moo gën a tax li ñuy wax ay doing business ay yooyu yëpp ñu ci noté Sénégal parce que sa environnement des affaires dafa am noo koy tëggee ba nga xam ne investisseur dañuy yàkkamti ñëw mais bu ñu ñëwee bu ñu ñëwee bu ñu jël lépp bu ñu ñëwee bu leen jox cent pour cent boo leen joxee cent pour cent dara des ci c'est le cas. en fait mënuñu wax ne c'est le cas parce que apparemment les gens pensent que lépp dañ ko jox étranger yi mais y a y a beaucoup de choses que les sénégalais euh, euh, ay euh, entreprises réaliser mais c'est insuffisant bi. xam nga soo bëggee defar lu mel ni train wala nga bëgg a defar Ila Touba d'abord yaa de da ngay war a am xam-xam bi am jumtukaay yi am xaalis bi te léegi loolu léeg-léeg suñu secteur privé du ko am parce que mooy éclatant éclatement bi ma la moo tax may saluer may may sant gis nañ secteur privé sénégalais aussi ñoo ngi commencé yeewu parce que club des investisseurs bi ñu créé mm-hmm. lu baax la. dafa naan sëriñ boobu ko njëkkoon tante groupe bi njëkkoon nañu ko tante ba réunion chambre de commerce doxul Babacar Ngom yëkkatiwaat ko tey mi ngi ci raay def naa def nañ 30 milliards war ko ubbiwaat def naa war nañ mën dem ba 300 milliards. mais tey secteur privé su ñu amoon benn société d' investissement wala club des investisseurs ñu am alal bu bëri dajale seen doole loolu la ñuy wax mutualisation des moyens boo nee mooy patronat bi yëpp foofu lañ dajaloo mais di di di di convoiter le marché international xeex ak chinois yi xeex ak américain mais soo amee secteur privé boo xam ne amul doole ba pare tasaaroo. mais bi ñu mun a compétir ci projet yi nga xam ne état bi dafay soxla xam-xam bi jumtukaay ak xaalis. c'est ça surtout léegi itam li nga xam ne loolu mooy côté ñun secteur privé ñu xam dañu war a booloo. même bu ko nekk amee sa sa sa sa sa sa organisation patronale dañu wa jot na nag ñu fédéré leen ci benn bu mag boo xam ne ñoom ñëpp a yëkkatandoo di dóorandoo beneen bi mooy état bi ci réforme yi mu war a def mais war na def ay réformes yoo xam ne aussi étranger buy ñëw parce que suñu suñu suñu pétrole am nañ ko suñu ay am nañ Sénégal c'est attractif ñoo ngi ñëw. mais bu ñu ñëw nga def comme yenn pays nga ne léegi kuy ñëw boo fi amee marché itam trente pour cent du du société bi ngay créé fii pour mun fi exercer 30 pour cent capital bi wala quarante pour cent danga koy lënkale ak ay entreprises sénégalaises waxuma de droit sénégalais mais des nationaux sénégalais ñooy détenir capital boobu. parce que boo nee droit sénégalais loolu moom la ñu wax aussi ñu réformer ci union UEMOA la notion d' entreprise communautaire parce que boo nee ku créé ci étranger bi ñëw. ampi convoité marché gagné ko ñu ne ko bala nga ko mën a exécuté wala bala nga ko mën a laaj marché bi sax da ngay créer société de droit sénégalais day ñëw ne capital 100 pour cent étranger ñëw créé ko. Mhm. bu paree bénéfice am yëpp da ko yóbbu liggéey bi rek la fi alors que boo ko nee boo ñëwee même boo gagné capital bi da ngay créer société bi ngay créé fii da nga ci jox ay sénégalais temps loolu lañ mën a def pour nag impliquer suñu secteur bi dans des projets comme bi pourquoi. parce que boobaa suñu secteur bi ci bokk ci biir société bi dina mën a wax ne dina mën a waxtaan ak am xam-xam am xaalis di wax technologie mu leen li ngeen fi réaliser muy train bi wala wala Ila Touba bi bu dee chinois yi wala train bi da ngeen ñuy former ay ingénieur xam nga am na hangar bu mag bu ñuy def fii pour train bi pour que yenn service après-vente yi ñu koy defee sinon da ngay jëlaat bateau yebaat ci affaire yóbbu ko ba France parce que ay il faut nga def ay atelier mais su fekkee ne soo amee train ba pare saa yu paane entretien bi ay ingénieur déplacé wu ñëw indaale seen matériel mais boobaa li ngay fay ci coût d'entretien bi sa am donc il faut que ñu def investissement woo bitim réew parce que mondialisation la mënoo tëju soxla nañ capital financier mais bu ñëwee nag nga def li wax joint venture nga def partenariat gagnant gagnant mais su déséquilibré rek ñoom dañuy ñëw di buub di buub suñu alal di dem ñu am ay infrastructures yu mag dinañ ko am mais retombées yi doo ko gis ci population bi ba pare dafay cher gis nga gis nga wàññi nañ présidence wàññi nañ temps yi defe naa autoroute bi wàññi nañ coût yi wàññeekuñ ko ñu ngi. wax nañ ne dañ koy wàññi ko léegi 3000 lañ wax xaw ma ci presse bi. man fay naa léegi 1000 francs mais li ma la bëggoon wax daal <laughs> donc wàññeeku li ma la bëgg wax mooy <laughs> pour mu pour ñu am secteur privé fort. Ah. pour daaneel. Mhm. il faut que état bi def ay réformes parce que état aussi moo mun a aider son secteur privé à s'organiser à se renforcer à se fortifier par une législation. Mhm. xam nga am na benn réforme bu nekk actuellement en cours pour créer benn chambre nationale benn rek loi bi voté nañ ko ba pare. Mhm. créé nag ay bureau xaw ma ay délégation au niveau des régions pour parce que dañ ne peut-être suñ ko boolee dinañ boole suñ doole mais noonu la patronat bi war def noonu la secteur privé bi aussi war def pour am les moyens de pouvoir aller en compétition mm-hmm. ak euh, ak étranger yi alors euh, président bu naan si si compétitivité boobu ngay wax noonu euh, yaa ngi yaa ngi ñaxtu di défendre seen seen cause mais alors lan moo ci responsabilité chambre de commerce vous savez euh, responsabilité bi comme parce que mënuñu wax industrialisation euh, on est à, à l'état théorique boo boo xoolee de façon réellement on n'est pas <laughs> industrialisé. on en parle mais concrètement on, on est, sur la voie aujourd'hui ku xool euh, actuellement tous les jalons que le président Macky Sall a posés donc euh, les les jalons étaient posés maintenant il faut accompagner avec des réformes comme l'a dit tout à l'heure monsieur Seck parce que tey tey bu ñu ubbeekoo nii rek investisseurs étrangers yi ñëw jël lépp yóbbuwaat lépp. on sera toujours à la case de départ. C'est le cas. Donc, et, et, actuellement. Euh, non c'est c'est c'est-à-dire aujourd'hui il faut que nous aussi en tant que secteur privé ñu nangu investir. tout il faut que faut pas que ñu toog nii rek ñu ne il faut que l'État nous donne nous donne si on n'investit pas un investit par exemple aujourd'hui État bu ubbee dara et je vous donne un exemple par exemple aujourd'hui sur le secteur minier ah. maa ngi lay jox exemple ci secteur minier bi. secteur privé national nanguñu investir sur le secteur minier après dinañ toog fi nee non euh, gars yi ñu ngi jël suñu or di yóbbu mais bu ñu si investirul exploité donc beneen étranger bu ñëwee investir exploité day yóbbu donc il faut que ñu tamit comme ni ma ko waxee rek am na rapport au euh, bu réformé secteur minier par exemple. boo boo jëlee kaaw agriculture. may ma may ma rek ma yeggali parce que état xam nga bu réformé. waaw créer cadre bi créer condition pour que son secteur privé national bokk ci capital yi. ba dina am ay transfert même technologie par exemple yow boo bokkee ci société. nga am expérience nga bokk ci capital bi nga am tey tey même euh, étranger bu demee yow en tant que yaa ngi ci biir di nga des di nga développer continuer sa liggéey. mais li wala li ngay c'est un cas important parce que on a eu à recevoir benn jour dans une émission euh, directeur des mines par exemple mu ñëw di wax si li wax noonu que les Sénégalais ne s'investissent pas ci wàllu mine bi mais boo comparé ak kaw agriculture par exemple. quand il a été question de lancer l'autosuffisance en riz et tout état bi dafa créer toutes les conditions et d'accessibilité pour que les Sénégalais s'investissent et ça a été le cas pourquoi pas les pourquoi vous responsabiliser léegi ne la responsabilité se situe au niveau des, des Sénégalais qui ne se qui ne s'investissent pas c'est un peu facile comme, comme explication également euh, euh, non xam nga parce qu'il y a des cas qui qui qui, qui, même qui présentent le contraire réellement boo xoolee tey tey ceeb bi aussi euh, wala agriculture en général Euh, c'est pas le fait que simplement di investir ci secteur bi mais il faut investir aussi sur la transformation. mais c'est le secteur c'est c'est euh, s'investir xam nga xam nga le secteur privé national. Mm-hmm. dafa war ñoom tamit euh, taxaw investir ci transformation bi. bu ñu ko defee rek on va gagner beaucoup plus nañ créer emploi problème emploi di ñëw. nañ créer nañ régler le problème de l'autosuffisance alimentaire l'agriculture est très vaste. dafa yaatu donc euh, euh, mun naa ne aujourd'hui boo xoolee euh, le nombre de tonnage bu ñu am ci agriculture mais boo xoolee lu bëri dañ koy exporter duñ ko transformer en brut alors que bu ñu ko doon transformer bu ñu investiroon ci transformation. bi parce qu'on n'est pas industrialisé. Euh, ouais, mais euh, ça c'est investi. <laughs> et avec aujourd'hui le pôle urbain de Diamniadio. avec léegi tey pôle urbain de Diamniadio euh, comme ni nga ko waxee sànq. état eh, bi muy créer condition <coughs> maintenant aussi il faut que le secteur privé approprie aussi développer industrialisation bi hmm. et boo gisee tey tey euh, jam ñaajo nu mu mel donc faut pas que aussi ñu toog di seetaan yeneen eh, euh, jóge feneen ñëw di investir. te commencé eh, nañ te commencé nañ. Ah. mais li may wax état bi rek mu facilité ñu ñun ñoo xamante ne nationaux yi lañ euh, pour investissement sur le secteur. industriel du pôle de Diamniadio parce que euh, secteur privé bi commencé na organiser wu à travers le club des investisseurs ñu ngi am fonds donc yaakaar naa ne euh, nous sommes sur la bonne voie. mais j'espère que pour pour ma ñëwaat si madame Thiam si on va revenir sur l'aspect classique officiel de l'assemblée générale euh, j'espère que cas Auchan bi ça va plus se reproduire par rapport à ce qui s'est passé ça été un, exemple vraiment illustratif pour l'avenir mais euh, xam nga Auchan euh, d'un côté c'est c'est c'est euh, comme un couteau à double tranchant donc am na yoo xamante ne ay sénégalais yoo xamante ne. ils sont pour Auchan am na ay Sénégalais yoo euh, euh, euh, a des Sénégalais aujourd'hui aussi parce que xam ne man du ma investir ci secteur bi keneen aussi du investir ci secteur le secteur privé national les organisations professionnelles nanguñu investir ci côté loo xamante ne Auchan moo ngi koy investir Auchan bu ñëwee l'État dina leen may investir. ça moo tax dama comme cadre bi secteur bi Auchan ah. dugg na fa est-ce que secteur privé sénégalais xaaraat feneen ay brèche parce que y en a encore dans ce pays ñu ñu waat investir foofu occuper ko ñu ñu mu nekkaat coowu au champ bi. non mais moi je pense qu'aujourd'hui comme l'a dit tout à l'heure le club. elle est centrale la question elle est centrale elle est centrale elle est c'est important. une chose uh-huh. nos secteurs privés n'ont pas les capacités financières le plus souvent pour s'engager Serigne Boub a essayé avec les la distribution créé na fi ay prix doux Sonadis amoon na fi ci indépendance parce que li Auchan def nii distribution rek la bu moderniser ko adapté ko à l'ère du temps def ko de telle sorte que nga xam ne dafay jënd produit yi muy jaay daf ci jënd quantité yu bëri su ko defee prix bi wàcc alors que fi ñun dañu nekk rek ci méthode tra xool si marché yi ni marché yu mag yi nga gis Sénégal muy lakk rek boo duggee ci biir marché da ngay frissonné soo jàngee tuuti risque moi parce que j'ai fait assurance da ngay gis le risque est là tout le temps à pour cent moo réalisé bu marché di lakk rek. Mhm. économie bi dem loolu war nañ ci jóg bu yàgg. mais dama ne comme ñun amuñu capacité financière yi nga xam ne borom doole ci bitim réew am nañ mhm. loolu aussi dafa laaj réglementation boo xam ne aussi dafay dox benn cër les entreprises privées locales pour que ñuy associé wu ak les étrangers qui viennent loolu rek moo leen mun a may ñu jàng. technologie bi apprendre seen ba mhm. pare loolu moo leen mën a may ñu occuper espace mais li ma bëggoon wax ci fiscalité tuuti xam nga léegi ñu ngi wax léegi ne maa ngi bi ma ko waxee mu dooleel ko mooy transformation on a un problème de tissu industriel ñun Sénégal te mooy créer emploi il faut que ñu créer ay industrie mais industrie foo koy créer da ngay jël des matières premières di ko transformer sinon mënoo ko créer feneen industrie à part les ak digital yooyu industrie da ngay jël sa li la yàlla may muy li gën ci biir suuf si ak li sax ci suuf si te loolu am nañ ci lu bëri nga koy transformer au lieu nga jël ko noonu rek di ko jaay bitim réew xam nga bu yàggul dégg nga président ne am nañ léegi ñoo ngi installé kii pour pour raffiner or bi dañ ko doon jël noonu brut di ko te loolu tant yaa ngi koy def doo am industrialisation doo am yenn capacité financière mais pour nga def ko pétrole bi tey mun nañ ko fi bàyyi 1000 ans suñu pétrole bi ñu am ñu tey 1000 ans ñun am moyen pour génne ko impérative il faut que ñu boole suñu doolee ak doole ñu am xaalis te nekk ci àdduna bi noonu lay doxee fépp. mais li ma bëggoon wax par exemple léegi pour affaire fiscalité bi ma posé woon sànq. ci chambre de commerce yi mais secteur informe bi tey pression fiscale bi dafay bëri parce que secteur formel informel day gën a rëy en Afrique surtout dans nos pays day gën a yokk mooy maanaam ñi nga xam ne formalisé wuñ seen entreprise. Mm-hmm. presque ñooy représenté 80 pour cent de l' économie du ñoo ñooñu pour fisc bi capter jël li mu ci war a jël il faut ñu formaliser leen mais fiscalité dañuy wax dara dañ boo bëggee fiscaliser ay nit da ngay commencer par coppati tuuti boo leen wooyee nga leen bu nga ñëwee ku nekk danaa jël tuuti ñu ñeme ñëw c'est au fil du temps nag fiscalité day màgg comme nit mm-hmm. waaye boo bëggee ñëw nga tiital leen du ñu ñëw jamais au contraire sañu nekkoon ci biir dañuy génnaat te loolu mooy xam fii eh, la politique fiscale euh, ma daaneel damay bañ a fàttali beneen bi mooy. secteur transformation bi ñuy wax. fiscalité bi dama amoon benn relance bu euh, important secteur dem ci dama la main mi day yàqu. Mhm. tamaate ji day yàqu euh, lu ñu fi bay Sénégal rek bu bu ba jotee dafay yàqu kenn ko transformer étranger bu ñëwee duñ dem ci secteur yooyu de. ils ne vont jamais dañuy transformer suñu produit agricole yooyu dañ koy jënd ñoom dañ koy jënd dañ koy jënd cru kii dañ koy jënd brut dem defaraat ko di ñu ko jaayaat daf ko ay conserve def ko matière première mais loolu pour nga état bi pour nga pousser si secteur privé rek ci benn secteur bu difficile boo xam dafa am au risque wala amul rentabilité bu demee noonu mooy ceeb bi nga doon wax bàyyi nañ ko mais ñu bëri dañu Sénégal bi bëgguñ ko il faut nga créer cadre ba def benn incitation fiscale boo xam ne dangay ngay pousse ñëpp ñu dem jar na sax nga exonéré leen ne leen du ngeen fay impôt ñi fa njëkk a dem deux ans yi duñ fay impôt mais boo exonéré dafa benn incitation fiscale amul benn avantage mais ñu yore seen xaalis dañu dem di ko risque dugal dugal ci secteur yoo xam ne dañ ko fay dugal après mu say état moo war a xam ne il faut mu am lu mu bàyyi impôt da am loo bàyyi créer entreprise entreprise yi yokk nga yokk sa assiette fiscale loolu yëpp aussi ci politique fiscale Sénégal. Ah, alors dafa bëggoon relancer euh, par rapport ak euh, wax ngeen léegi dafa am ay benn éclatement. ñoo xam ne ils font les mêmes la même chose que chambre de commerce est-ce que justement l'explication ne se situe pas au niveau de la fiscalité par exemple yoo xamante ne ils ont nañ mën a am plus de recettes par rapport à l'État du Sénégal que par exemple euh, chambre de commerce yi parce que il ah, agence yi yi par exemple non agence yi agence yi ay budget lañu ñu mën a dugal dugal agence yi créer des des des. les agences sont sous la tutelle des ministères ah. agence yi. Mhm. du ñu indi xaalis état bi. agence de compte c'est des gouffres d'argent <laughs> ay budget lañ leen woote. jox leen ko mais nañu fayloo nit ñi ay ay taxes ay ay. par exemple sur Apix tu peux payer des y a de la fiscalité. sur cette place même booy créer entreprise yooyu bon peut-être y a des timbres yooyu. mais dañoo amul activité loolu ça existe dans les chambres chaque chambre am na centre de formalité des entreprises. Mm. am na centre de formation am na centre de gestion am na centre de gestion kon loolu c'est pas lié. c'est des guichets pas lié. non les agences publiques. ne peuvent pas faire des activités génératrices de revenus. comme activité principale ñoom assistance la ñuy def c'est des services publics. Mmh. ils des services publics xanaa xamoon ne chambre de commerce presque service public lay gérer parce que comme ni ñu la ko waxee ah am moo nekk chambre de commerce. parce que lu tax acteur économique yi mu am état bu nekk sa acteur économique. mais pourquoi état ba affaire bi di ko ça pose problème. dama lay jox benn exemple de commerce bu mag ça c'est Serigne Mboup ki ma la raconte. mu ñëw wala Lamine Niang fa Lamine Niang yàlla na ko yàlla yërëm mu ne ko dama bëgg ngeen defar chambre de commerce bu mel nii am doole ma jàppale leen. mais on a fait traîner l'affaire je ne sais pas pour quelle raison tu peux demander nga def sa enquête. tous les milliardaires de du Maroc dañ fay xama Maroc la xama ban pays Turquie dañ fay bousculer wu dañuy concerté wu di échanger def ingénierie financière fii laa Touba bi ñu dem leb Exim Bank mais état bi su fekkoon ne am na fi secteur privé fort bu am capacité yenn yi mais danaan secteur privé dama bëgg a construire autoroute dama bëgg defar train yéen su fekkee mën ngeen organiser wu ngeen dem wut ay partenaire lépp xaalis bi man état ma defal leen cahier de charge ngeen defal ma ku état du ci lebante tey bor yi ñu topp yu bëri nii mais notre secteur privé ne aussi du du def loolu proactivité boobu état bi aussi du ko def donc il y un manque de de de de de de, de complémentarité comme ni ko il faut que l'état comprenne que les chambres de commerce fortes. Euh. ça fortifie son action. Mhm. ça lui permet des décisions yi muy jël. Mhm. application bi yomb parce que bu fekkee ne avis bi mi ngi jógee ci acteurs économiques yi état bi laaj leen ba jox ko les bons mu jël décision yooyu sur le plan de la fiscalité sur le plan des réformes. et mhm. tout ça dafa yomb appliquer parce que ñoom acteurs économiques yi ñoo koy appliquer après. pour compléter tuuti lu mu ci wax rek looy tax sànq mu wax leen euh, il faut que état bi xam ne chambre yi ñoom ñoo ko moom il faut que état bi waxtaan ak chambre de commerce Euh, lu mu ko wax nii sànq looy tax ma ne woon aussi président temps président Senghor ma ne la euh, président chambre de commerce Dakar bu fi nekkoon Senghor du doon toog une semaine toogul ak moom waxtaan ak moom chaque semaine donc aujourd'hui il faut que l'état s'approprie des chambres état bu ko defee rek moom mooy gagné comme ni mu ko waxee nii rek dina permettre secteur privé bi booloo mais euh, bu dee état bi dafa jël ay interlocuteurs organisation professionnel état bi day sonn day essoufflé. du mun a te nee nga sonn euh, déjà ba pare du mun a. <laughs> booster l'économie et du gagner. alors que aujourd'hui euh, le développement du pays c'est très facile dans chaque région il y a une chambre de commerce am na chambre de commerce état dafa waroon appuyer wu ci chambre de commerce yi financement yi mu def ci agence yu bëri dafa waroon rationaliser ci chambre de commerce yi jox leen des contrats de performance. Ah. bu ko defee en je peux vous dire en une mandature président bu ko njëkk a def je vous jure qu'en une mandature dina changer vision Sénégal yëpp mhm. parce que aujourd'hui euh, dans tous les secteurs d'activité mhm. am na représentation ci chambre de commerce ñu ngi jëm ci ci campagne ñu war a ñu war a économie Sénégal yëpp ñu ngi ci biir chambre de commerce yi donc il suffit simplement une harmonisation euh, une appropriation de l'État euh, jox leen jumtukaay et on booste l'économie. on booste l'économie ah, voilà man dama bëggoon dugg si liñ doon wax tout de suite euh, si euh, compétitivité bi parce que sooy wax compétitivité da ngay dugg da wax accès au marché public. Mhm. mais man euh, je suis agent de chambre de commerce de mais am na loo xamante ne kii man dama si d'accord mooy que ne que ñu ngi fustiger les entreprises étrangères étrangères étrangères mais mais entreprises sénégalaises yi nanguwuñu investir si seen renforcement de compétences yow tey sa xaalisu contribuable. moom la ñuy defaree tali te si ab benn part boo xam ne ñuy defaree tali sama xaalis xaalisu ël citoyen lambda su fekkee ne entreprise sénégalaise bi tey jox nañ ko pour mu defar tali mu defar tali boo xamante ne ni fi lay euh, deux ans trois ans mu bët mu am mu am mu am ay ay ay nii am ay pax entreprise française bi ñëw tabax defar tali boo xamante ne ni am na épaisseur bu baax. mais euh, ñun aussi quoi qu'on dise na xaalis bi xëy na étranger lay dem mais loolu en matière de euh, gain d'argent et de temps. loolu mooy est-ce que état bi dina dina nangu jox li muy jox. tubaab bi dina ko nangu jox lu muy jox. Euh, sénégalais bi su sénégalais bi parce que appel à compétitivité la appel d'offre la mieux disant la ah oui c'est des c'est des mieux mooy offre technique et offre financière. parce que ñun man j'ai coordonné un programme d'appui à la croissance et à la compétitivité des entreprises de 2010 à 2015 mais li ñu doon demandé opérateur économique yi moo di koy nekk chaque mois mais ñu cotiser ci chambre yi pour ñu gën a mun leen suñu conseiller en entreprise yi mun leen gën a jàppale pour ñu def ay formation technique renforcer seen capacité mais duñ ko nangu parce que dañuy nekk chambre commerce yi état moo ko fi teg donc tous les services parce que balaa balaa ngay euh, mun a am euh, mesurer impact euh, service bu efficient mooy que nekk nga dugal fa sa dërëm si nga koy fulaal donc ñu ne suñu opérateur économique foofu aussi dama leen di lancer rek parce que chambre commerce yu am doole yi ngay wax ne moom nga gis mais foofu noonu les gens dañuy cotiser. tout à si chambre yi dem naa benn mission en Allemagne mais soo demee foofu noonu entreprise bu créé ci saa si. chambre de commerce bi suñ ko génnee génnee registre de commerce dañ euh, à la chambre de commerce parce que y a le fichier des entreprises y a le répertoire des entreprises chambre de commerce da ngay bàyyi mu daw un an un au bout d'un an da lay yónnee entreprise ah, yu mag industrie yu mag yi quoi qu'on dise yi ñooñu ñoo nekk ci parce que ñun les petites PME PMI ñooñu soxla mais ñooñu noonu chambre de commerce yi ñoo leen soxla parce que ñoom war nañu quand même nekk des des des des des des des citoyens d'honneur. Mhm. des xam nga di di di yokk ko koomu chambre de commerce yi. li ñëw ci PME yi ak euh, euh, création d'emploi avant ñu mais dama bëggoon ñu ñu ñu ñu delluwaat tuuti ah parce que <laughs> sori nañ trop. te prétexte moom mooy assemblée général bi. c'est alors euh, président ñu lay jox parole bi. Euh, on va vers quelle assemblée générale lan mooy solo bi ren jii muy troisième fois au à Dakar. xam ngeen comme nuñ ko waxee c'est la conférence permanente des chambres de commerce euh, des chambres consulaires africaines et francophones donc CPCCAF day regrouper 31 euh, pays donc dont 26 pays africains et Canada France. Haïti Belgique Luxembourg bokk si et tey tey boo xoolee ci CPC CAF aussi euh, am nañ 130 membres directs et plus de 600 chambres consulaires donc c'est un grand réseau boo xamante ne c'est un réseau de solidarité et de coopération et d'appui donc euh, réseau bi euh, am na doole doole bu mu am c'est parce que mu ngi ci biir Euh, pays euh, africain euh, ñuy wax 26 pays africains ak pays francophones yi donc déjà am na réseau francophonie bi e am na service yu bëri ñuy def service d'appui donc te bu ñu koy accueillir fii aussi dina permettre aussi ñun chambre de commerce Sénégal yi ñu approprier wu ci programme d'appui yu nekk ci réseau bi Euh, programme partenariat yu nekk ci réseau bi donc pour permettre à, à nos chambres de de de de de lancer et de s'approprier de certains projets donc euh, tey tey c'est le le du 10 au 10 donc euh, Dakar lañ koy defee mhm. euh, suñu membres yëpp ñu ngi leen di oo di leen invité donc ñoom ñëpp ñu ñëw teew participer donc euh, dina permettre aussi euh, euh chambre yi def euh, le le le le partenariat coopération entre chambre commerce. Mm-hmm. donc chambre de commerce Kédougou mun na nekk partenaire ak chambre de commerce euh, bu France wala bu bu Tunisie wala. Euh, Mauritanie yoo xamante ni bokk nañ ci réseau bi. Mhm. et dina permettre aussi euh, le secteur privé. Mhm. donc parce que euh, nga xool kii sa morom entreprise bi lu muy def loo xamante ne mun nga ko adapté ci yow fii. Euh, dinañu permettre vraiment. Euh, échange échange yu bëri ak expérience yu bees expérience alors dañuy def e assemblée générale bi avant ñu ñëw si programme bi ak Mor mais madame Oumy Thiam loolu si xaar réellement en tant que actrice des chambres de commerce. lu ma si xaar déjà man balaa may wax lu ma si xaar damay rafetlu troisième quarante assemblée générale bi. Mm-hmm. di fàttaliku nekk CPCCAF. Dakar Ndiaye bii la juddoo Dakar Ndiaye bii la juddoo euh, te mu ngi jógee ci benn euh, sommet euh, OIF bu amoon. Mhm. n'est-ce pas France Afrique bu amoon. Senghor nekkoon fa houphouët ñi nekkoon fa Georges Pompidou nekkoon fa. Mhm. ñu seetlu ko ne nekk ci sommet boobu ne dafa nekk benn cadre cadre politique. donc opérateur économie yi ñuy wax amuñu woon cadre d'échange et de partage d'informations à temps réel ñoom ñu daal di koy xalaat daal di koy tënk. si lañ ko créé euh, ñu ko créé fii en 1973 en marge du boobu bi ko créé jëm si yàlla Lamine Niang mooy njëkk bind les les statuts te euh, bi mu bindee statuts yi boobu mu nekkoon secrétaire général chambre de commerce laata muy nekk président donc mu nekk tey troisième organisation bi bu njëkk bi bi Momar Souran nekk président union la woon mhm. deuxième bi Lamine Niang nekk président union d'ailleurs sax si lañ ko falee président CPCCAF en cinq euh, ba tey Serigne boobu nekk président union mandat bi euh, tous les trois ans lay changé CPC4 ba am statut bi ma ko waxee Lamine ñaa moo ko bindoon. Mhm. statut yi mooy que ne que président bi la ñuy soppi chaque année tous les trois ans te président bi président africain la trésorier bi mooy le président de la chambre de de Paris. donc ki koy. moo yor koppar yi. moo yor koppar yi tubaab ñoo africain mooy nekk président mooy nekk président léegi délégué. koppar am na solo de maanaam. waaw je ah. sais délégué délégué général. gars yi naxuñu gars yi foofu nga yaakaar office de directeur général kooku dañ ko dañ ko dañ ko recruté. Mhm. donc li ko samp mooy que dafa nekk ni ko waxee mu nekk cadre de partage. n'est-ce pas opérateur économique yi ak chambre consulaire yi secteur privé bi am benn kàddu boo xam ne si la ñuy waxtaanee si la seetoo seen i jafe-jafe si la amee information économique réelle à temps mm-hmm. comprendre nga loolu moo ko loolu moo ko moo ko moo ko kii te bu tam ñu tam nag organiser ko Sénégal ndax euh, euh, Afrique dañ ko diviser en quatre zone dafa am euh, zone nord est ouest ak ak centre mais mm-hmm. nag quatre zones yooyu chaque année tous les chaque année dañ fay organiser assemblée te dafay nekk jongante Sénégal dugal dossier Madagascar en 2015 euh, pardon dugal ko au Togo euh, kii en 2015 défendre ko à Madagascar en 2016 euh, ak plaidoyer bu baax a baax vraiment ku ñu mel Ahmed Bernard Gueye moom la moom la sëriñ bu yebaloon mu wax mu mu mu mu def plaidoyer mu ñëw fii Sénégal ñu koy rafetlu bu baax a baax lu tax ñu koy rafetlu bu baax a baax ndax xam nga ni organisation bi nga xam ne 350 opérateurs économiques yi gën a mag si pays francophones yi dañuy teew Sénégal pendant 3 jours Dakar moom nañu pendant 72 heures mooy nekk capitale économique francophone 350 opérateurs économiques yu gën a mag si francophone ñëw déjà dina am ay impact politique euh, économique ndax euh, hôtel yi déjà fi ñuy dina am dara donc euh, dina am ay échange possibilité de partenariat de joint venture mun na am dinañ état du Sénégal investir na ces infrastructures yu mel ni jam ñaaju donc ay visite dina fa am monument de la renaissance euh, la renaissance. Mhm. mooy le plus grand monument de l' Afrique n'est-ce pas. Mhm. nekk dafa ko si ay collines te quoi qu'on dise monument bi c' est un monument qui est méconnu. Mhm. donc ñooñu dinañ am visite visite bi dem visiter ji ko. manufacture des arts décoratifs du Sénégal manufacture sénégalaise des arts décoratifs MSAD nekk benn manufacture boo xam ne moom Afrique de l'Ouest Ouest. yi yëpp tamit dafay nekk fait à la main. donc ñoom dañ leen permettre ay plages ñu mën a sans compter waxtaan yi si biir entre zone parce que président ni mu ko waxee sànq euh, dafay am euh, euh, inter communal ñu koy waxee communalité n'est-ce pas. Mm-hmm. parce que chambre de commerce du nord mun na mun na mun na signer benn convention dem en bureau ak benn chambre de commerce du sud comme chambre de commerce entre soo mun si am ay convention donc loolu daal dafa nekk loo xamante ni kii dafa am aspect économique boo xamante ni kii daal su suñu sago sénégalais yi dinañ ko wu. Mm-hmm. ni ko président laa ji waxee. ñëw si cérémonie bi euh, d'ouverture bi dina am la le 11 euh, décembre fii à King Fahd lay am le matin ñu ñu lancé ko après assemblée générale bi am. Mhm. avant ça le 10. Mhm. am na benn activité boo xam te ni sekk dugg na si sànq activité CPSCAF ñu koy archipelago xam nga Sénégal ñëpp xam nañ ne nekk léegi euh, comme Afrique ñu si bari dañuy bëgg di jéggaan di maanaam dem di émigré ji te ko que CPSCAF mu ngi xalaat benn programme boo xam te dañuy fixé ñun suñu ndaw yi au Sénégal nañ leen di fixé. forme former leen renforcer seen i capacité finance leen fexe ba ñu teg seen entreprise chambre de commerce yi leen n'est-ce pas si seen service d'appui accompagné peut-être par euh, ay ñu mel ni des centres de formation waaw dama dama ciy surfer pour Euh, euh, sa chambre de commerce yi ko dañu am même mission quasiment ak les centres de formation sur la création d' emploi bëggoon naa loolu nga nga wax si tuuti parce que euh, mooy tekki fii am na concept tekki fii donc c' dans le centre de formation yi la mm-hmm. pour les jeunes mm-hmm. chambre de commerce yi même même vocation finalement oui xam nga formation professionnelle surtout mm-hmm. dafa nekk ci mission yi gën a am solo ci chambre de commerce parce que chambre de commerce ñi koy animé ñi fa nekk ce mooy ñi nekk nga xam ne ñoom ñooy doxal économie ñooy doxal ñooy doxal économie économie mooy indi koom ñi nga xam ne ci lañ liggéey privé bi ñoom ñoo ñoom ñooy ñoom ñooy doxal chambre de commerce ñoo fay nekk di xalaat jànkonteeg problème di seet ni koy lijjante nekk nag partenaire état comme ni ko président waxee léegi li nga laajte léegi dama bëggoon bala ma ci yegg si nga fàttali ne assemblée générale bi mhm. siège bi siège u CPCAF Paris la nekk l'administration en fait c'est parce que c'est les pays francophones c'est pas une affaire africaine simple mhm. du mbiru Afrique rek mbiru pays làkk Euh, nasara euh, tubaab yëpp. mooy mbiru France la rek. waaw léegi nag langue langue non non du mbiru France. <laughs> c'est qui c'est qui le non non bu ko def affaire <laughs> la principale promotrice de la langue française c'est la France. waaw waaw loolu <laughs> yàlla moo ko dogal loolu si loolu histoire la loolu loolu taarix la waaye langue boobu nag bi ñu defee ba Senghor yoo itam créé francophonie. Hmm. dañu itam communauté bi bala mu gën a am war nañ ko war nañ ci profité dara mooy boole lënkale suñu doole pour que koom-koom bi gën a dox ci biir communauté bi. Hmm. loolu mooy solo dafa ay échange expérience bi mu fi ñëwee. Mm. am na ay ay ay ay am na tamit li ñuy wax échange de bonne pratique parce que léeg-léeg gis benn réew boo xam dafa avancé ba dem émergence ba ba jaar ci yoon bu baax di décoller moom war na mën a jël expérience boobu mu ñëw xamale ko ak yeneen pays yi. Mm. loolu yëpp aussi mooy mooy communauté bi benn famille la. Mm. li nga laajte léegi nag ne mbiru centre de formation yi. ñoom archipelago union européenne la ak yeneen ci comme allemand yeeg yooyu yëpp ñu ngi ci biir. moo ne boo coloniser léeg-léeg nit ki tam indil ko ay jafe-jafe léeg-léeg tam boo demee ba ci kanam li ñuy wax effet boomerang ndax mbiru exploitation li ñu daan wax ci ci at njëkk yi naan la les termes de l' échange. Euh, détérioration des termes des termes de l' échange inégal. Mm-hmm. gis nga loolu tant que mi ngi am suñu diggante ak Europe problème yu mel ni immigration clandestine xale jug di dem parce que dañu sàggane en dans suñu suñu réew yi suñu système jàngale. bi ñu jële ci colonisation bi dañ ko continuer yor bi ñu amee indépendance dañ ko waroon changer parce que même ñi ñu ko joxoon dañ ko changer bu yàgg am réew ñëpp mënuñoo jàng dem wuti bac di wuti ay recherche di dem ci kaw kaw ñun ñun dafa mel ni dañuy nelaw parce que ba ñu waree changer suñu système éducatif bi nga xam ne boo yegsee ba CM2 day am ay passerelle ñii nga xam dañu war a nekk ay ouvrier dañu war def ñu ay ouvrier qualifié a nekk ay ay ay euh, agent de maîtrise ñu wutal leen niveau brevet niveau bac bu ñu amul bac ñu mën leen yóbbu ci ay école de formation hmm. mais presque ak ñëw président Abdou Abdoulaye Wade ak tey président Macky Sall accéléré ku baax ci la ñuy wax la ñuy wax budget enseignement professionnel man maa nekkoon directeur général ANAMO maa ko njëkk a créé ak Abdoulaye Wade mais enseignement professionnel dañ ko mus a sàggane budget bi matul woon 21 milliards tey defe naa doublé na parce que gis nañ njariñu formation pour xale yi ñu dem ci géej gi di dee nekk ci dëkk bi def marchand ambulant nekk di chômage bi nga xam ne mooy. moo teree nelaw kilifa yi Afrique yëpp. gis nga Tunisie la fa xew. gis nga Maroc la fa xew gis nga pays africain yi daanaka régime yu bëri moo leen teree nelaw mais lan moo ko indi xale yi ñu ci bëri d' abord demuñu école ñu ci dem école ñu bëri dañuy teel a bàyyi ñu ci des ñëpp dañuy dem ba am ñu am bac diggante ñooñu ñëpp nag dañ leen di verser chaque année ci marché bi ne leen wutal emploi waaye mais sëñ bi ku amul métier léegi ñëpp commerce lañ bëgg a taaba taaba business dëbal dëbal loolu nag du du jëmale mbir mi kanam moo tax enseignement professionnel mooy jox nit ki dignité mu am métier. loolu moo tax nag programme archipelago bi ñoom seen bopp ñoo ne dañoo bëgg bi bu ñu ñëwee financement yi dañu bëgg jaar sukkandiku mm-hmm. ci organisation du secteur privé mooy chambre ñoom ñoo ko bind de chambre consulaire consulaire yi mooy chambre de commerce yi. non consulaire c'est il y a même les chambres de métier. oui moom moom ñun xam nga fi comme chambre de. Mm-hmm. chambre consulaire mooy lépp liy représenté ay liggéeykat. dañ ko séparé tey en chambre d'agriculture chambre euh, de commerce chambre des métiers et mais su ma waxee yëpp la daal. Mm-hmm. léegi ñooñu euh, ñoom ñoo war a euh, yore ñoom ci ñoom lañ bëgg sukkandiku pour financement boobu nga xam dañ ko bëgg a def pour wutal xale yi ay xam-xam ci métier financer leen ba pare. mun leen téye seen localité xam nga loolu chambre de commerce ko mun def parce que chambre de commerce yi bu ñu xam bi lu habitude nit ñi habitude consommation problème yi du ñu xam def dañuy wax dañuy jël ay solution parachuté ko foofu donc centre de formation yi ñoom ñoom dañuy bëgg a jaar donc ci chambre de commerce yi ak centre de formation yi donc ñu ñu proposé leen nag léegi dafa leen benn plateforme boo xam ne dafay regrouper fii au Sénégal parce que projet bi am na ñaari projet ñun 12 pays africains la ñun li ñu am ci projet defe naa boo ko dajee 1 milliard lay topp ak lu toll. bu dañ ko bëgg a jaarale ci chambre de commerce parce que man gëm naa ne bu ñu ko jaaralee ci chambre de commerce yi am lu ñuy wax inclusion. parce que chambre de commerce loolu mooy seen métier mais bu ko jaaralee léeg-léeg nag je n'ai rien contre les ONG mais xam nañ ak administration. ay séminaire ak jënd oto matériel moo ci ëpp souvent boo gisee ay milliards tey. <laughs> bëgguma citer benn organisation mais barki démb délégué bi ñëw mi ngi ñu wax ne boobu noonu mun naa ko citer parce que. bu ko wax bu ko wax bon mun nañu ko citer. parce que aussi c'est tout c'est de l'information c'est pas grave. migration migration internationale c'est pour tout le monde. Euh, ñoo ngi fi def liggéey bu rafet mais diñ jot ci xaalis. par rapport ak li ñu réalisé ci ay emploi ak téye nit ñi seen gox yi pour ñu liggéey war nañ ko xoolaat dañuy wax ne ñu jox ko ñi nga xam ne c'est des acteurs économiques nga xam ne ñoom. ñi koy yellool. ñooñu bu ñu ko joxee dinañ mën a former sax ñun. dinañ mën a jël ab xale mu am idée de projet xalaat rek lay am xalaat bi ñu transformé ko projet transformé ko entreprise gunge ko ci ay foire créer ko entreprise am di ko gunge ba mu nekk demee un champion mm. gis nga champion yu bëri ngay gis fii jànguñu ay école génnewuñu ay HEC fii Sénégal dañ leen formé dans la pratique tout à fait ku nag njàngam théorie rek dina jàngal ba sa bopp bi fees dell bopp bu fees bopp bu baax moo ko gën <laughs> ak mun a jëf mm-hmm. donc loolu moo tax euh, projet archipelago ñoom ñoo ubbi ñoom ñoo tànn assemblée générale bi pour ñëw ubbee seen programme boobu nga xam ne koy financer Sénégal ñun nag ñoo leen bëgg a defal plateforme boobu nga xam day regrouper chambre consulaire yi centre de formation yi ak boole ci aussi les organisations professionnelles hmm. Oui, donc jeex na ah, moom gaaw na jeex bi. Ah, waaw xëy na xëy na daal neex rek. <laughs> dafa neex donc pour euh, pour renforcer. Ah. Euh, li li Seck wax vraiment euh, ma xamal ne que ñun. Hmm. chambre de commerce yi ñuy wax par yooyu programme. parce que te xaaruñu si woon archipelago parce que ñu ngi koy déroulé di euh, wuti ay partenaires xam nga yaay fàttali ko amoon temps mu amoon euh, euh, li ñu wax les rapatriés d'Espagne mm-hmm. amoon les porteurs les PVVIH nekkoon des porteurs sains ñu leen daan stigmatisé mais chambre de commerce yi ñu ngi leen déroulé ay programmes yoo xamante ni que dañ leen di renforcer seen capacité former leen wutal leen seen entreprise jox leen jumtukaay ñu suy liggéey actuellement nii nii nii nii ñu ngi déroulé benn programme boo xamante ni nii ni mu ngi tudd tedd si sama gox tedd si sama gox bi ay jeunes de 15 de 17 pardon à 35 ans la ñuy euh, la ñu la ñu sélectionné euh, euh, dugal leen di leen former wutal leen ay formation ci transformation nourrisson alimentaire tey gis nañ ne que tey ak ñun ñi nga xam ne ñu ngi cees ak parc Diamniadio tout ça là gis nañ ne que camion gros porteurs yi secteur porteur la. ñu ngi former ay jeunes si ñu am seen i permis poids ñu ngi former ay jeunes xam ne actuellement affaire mbirum énergie renouvelable dafa nekk secteur boo xamante ne que nii secteur porteur la. Mm-hmm. ñu ngi leen siy na donc si te citer ñooñu loolu rek ndax nee nga ma temps bi dafa gàtt ñun ñu ngi si. Mm-hmm. non seulement dañ leen di former formaliser leen defal leen seen business plan jox leen ay jumtukaay gunge leen insérer leen parce que li muy wax ni mooy c'est la formation duale. Mm-hmm. parce que yow de yaa ngi wax am bac mais ñun on a des yoo xam ne dañuy recevoir mais ils sont pas moo leen sant dara ñu defal la ko. Mm-hmm. il faut que ñu jaar chambre ko ba def fi deux mois ne la mais fii dama fi jàng jàng ma ko sa culture scolaire. mooy jàng bu utile. Mm-hmm. apprendre utilement. mais dafa am benn accent bu ñu mën def accent mm-hmm. avant président. aujourd'hui ñëpp d'accord nañ ne yàgg nañ def ay financement du ñu gis emploi xam nga lu ko waral boo defee financement te gis emploi c'est parce que kan ko jox jàngaloo ko ni ñuy liggéeyee. Mhm. lu mu war a liggéey ak nan lay liggéey mhm. capacité gestion boo mënee métier par dafa war a xam ni ñuy gérer aussi nu ñuy wutee marché nu ñuy defee entreprise nu ñuy wutee clientèle mhm. donc léegi dañuy allier formation ak insertion ak insertion parce que bu njëkk ba da ngay former nit amul benn njariñ ONFP day former ñu bëri ah. mais bu formé ba pare te nit ñi pauvreté bi wala ñàkk gi tax na mënuñoo am sax 200000 ñu ubbee benn cantine donc il faut nga lier te loolu chambre de commerce ñoo ko mën def à Bordeaux où j'ai fait mes humanités euh, au niveau des chambres de commerce la chambre et des chambres de métiers da gis xale bu ñëw tubaab dañ leen foofu la législation dit boo amee tel âge boo bàyyi jàng boo bàyyi jàng obligatoirement sa parent nañ la war kii nga def un projet d'idée boo ko amul dañ leen di am ay ay kii incubateur yoo xam dañ leen di kii pour di mmh. leen développer ay idée de l'idée du projet on arrive à créer un champion mmh. yoon bi yëpp nga jaar ba nga xam ne xalaatu projet rek ngay ñëw bañ def la champion économique yëpp ci biir chambre de commerce yi centre de gestion agréé centre de formation euh, business plan euh, euh, defal la sa recherche de financement auprès des banques indi la garantie mm-hmm. tout ça c'est qui le font te loolu yëpp ñu ngi koy def au niveau des régions ma ne Oumou Thiam dara parce que. bon li ma bëgg waxee ba kay nekk rek balaa fàtte lii. voilà ma ne le jour bi le 11 quand même jour bi le soir. Uh-huh. vraiment ñu ngi invité Sénégalais ñoo participer suñu soirée de gala boo xamante ni quand même. à part aspect vraiment sérieux travail tout ça donc bëgg nañu déri di def benn soirée de gala le soir au eh, foofu eh, comment dirais-je à teru bi n'est-ce pas. teru avec la diva Coumba Gawlo Seck. Mhm. donc vraiment ñu bëggoon daal ñi ñu Euh, ñëw bokk si partager ñun vraiment moment de détente boobu. Mhm. ku si bëgg information nga yegg ci approché euh, au niveau de l'union des chambres de commerce. alors euh, président léegi bu ñu paree assemblée générale bi yow yaay président chambre de commerce bu Kédougou. Euh, lan ngay def yow à part à part assemblée générale bi waxuma la nga wax waxu politique xam naa après <laughs> en tant que acteur chambre de commerce président lan ngay proposer waa Kédougou spécifiquement à la suite de l' assemblée générale qui se déroulera dans quelques jours chez nous. Euh, maa ngi lay gërëm di la sant di la remercier ci invitation bi et surtout invité sama opérateur économique yëpp. ñu ñëw parce que comme ni ngeen ko xamee euh, Kédougou est une ville carrefour am na ñaari frontière donc euh, c'est une ville aussi commerciale et euh, aussi minière donc euh, euh, je peux dire qu'aujourd'hui euh, le développement du Sénégal euh, c'est à Kédougou mhm. donc si vous voulez pas rater le développement du Sénégal il faut aller à Kédougou donc et surtout comme ni ngeen ko xamee CPCAP donc c'est vraiment un réseau fondé sur l'interconsulaire donc euh, ñu ñëw booloo jàpp euh, bokk si ci réseau bi euh, am ay partenaires yoo xamante ne dinañ am yaakaar naa ne partenaires yoo xamante ne jàpp jàppale pour am expérience aussi sur euh, le secteur minier. Mhm. donc euh, et surtout aussi. Euh, appeler état bi aussi à plus euh, s'approprier des chambres de commerce. Mhm. donc euh, jàppal leen pour mm. ñu am ay jumtukaay yoo xamante ne. Mhm. Euh, comme l'expérience de la France aujourd'hui état bi mun na financer chambre de commerce sans génne xaalisam. ay mécanisme rek lay defar. par exemple je te donne aujourd'hui l'exemple surtout. Euh, parce que ñun membres yi sax ñoo koy fay après c'est seulement l'État créé cadre bi parce que ñun bu ñu nee tey léegi chaque entreprise bu nekk ci région bu nekk euh, ñu defal la benn taxe d'apprentissage yoo xamante ne ça va revenir au chambres de commerce les chambres de commerce vont former euh, les jeunes mm. vont les trouver du travail parce que comme ni ma ko waxee euh, les acteurs économiques ñoom ñooy former chambre de commerce comme tey man Euh, sama entreprise moo ma permettre ma nekk président de chambre de commerce donc tey tey su ma formé jeune donc amal naa ko débouché déjà donc euh, bu ñuy joxee euh, ay jumtukaay par exemple ñu ne sur la fiscalité ñu ne par exemple on met une taxe de zéro virgule x pour cent qui sera versée à la chambre de commerce pour une taxe d'apprentissage ça va permettre chambre de commerce yi am doole mun a def yu bëri parce que euh, am nañ loi bi permettre nañ ñu def yu bëri mais jumtukaay pour ñu def ko moom lañu amul moyen pour ñu def ko moom lañ amul donc mais létat état bu créer cadre pour ñu am moyen état bi du débourser dara day créer conditions yi rek donc même par exemple aujourd'hui ci exemple beneen exemple aussi ci refonte registre de commerce bi rek ñun ñoo koy fay ñun ñoo yore région ñun ñooy membre yi loolu rek xaalis bu bëri ay milliards yu bëri donc état bi c'est créer les conditions rek encadre rek si je comprends euh, bien le développement du Sénégal passe par les chambres de commerce je pense que euh, nous sommes à la veille à la veille nous sommes à la veille d'une campagne présidentielle xëy na euh, kandidat yi dégg la et puis bon ñu surfer ci loolu quoi une a élu au à la magistrature suprême. alors Mor Seck oui non non déjà je peux dire que mon candidat déjà a pris il a créé le cadre nécessaire. Président, on va pas politiser les deux plateaux. je peux te dire aujourd'hui <laughs> politiser plateau bi euh, euh, politiser. mais may ma tuuti rek ma eggalee may ma tuuti ma eggalee rek may ma tuuti ma eggalee rek gis <laughs> politiser. mais gis Euh, le euh, le président Macky Sall est un levier euh, pour le développement du pays là. Ouais. Les conditions aujourd'hui, le pôle urbain de Diamniadio, euh, l'ADER qu'il a mis. Et aujourd'hui bilan président Macky Sall merci on pas politiser le plateau c'est pas alors merci en tout cas merci tu es un bon militant Mor le mot de la fin nooy tëjee émission le mot de la fin c'est delloo njukkal sëñ Muntaxa Mbacké mhm. parce qu'on parle de formation professionnelle mhm. tey posé na première pierre u université bu jar 37 trent 37 milliards mhm. ah, pour jàngale xam-xam ci diine xam-xamu jamono mais aussi surtout moom mi ngi def accent bi ci former xale yi pour ñu am ay métier parce que tey jeunes yi li ñu leen njëkk a wax boo leen joxee xaalis ñu téye ko li mu wax léegi DER bi ak dual bi la formation dual la parce que dañu def def ay analyse gëstu xam lan moo tax chômage bi ñu ne léegi le problème de l'inadéquation entre formation emploi bu ñu jëlee chambre de commerce loolu day jeex parce que xam nga acteur économique bi su former apprenti comme ni mu ko waxee euh, une taxe d'apprentissage qui permet de recruter beaucoup de jeunes au niveau des chambres de commerce de les replacer de les reverser aussi du réalité du milieu économique mhm. nga xam ne jotewul dara ak milieu économique bi boo leen formé bu ñu génnee mooy li wax ay maîtrisards yoo xam boo leen dee ci entreprise sax mënuñ liggéey donc ñoo ngi ñaanal sëñ bi daal école boobu université boobu yàlla na ubbi defe naa Afrique yëpp nañ ci jariñ voilà kon euh, sama mot de fin début bi yaakaar naa man jaale moo woon Sénégal ak islamique euh, disparition Sidy Lamine mhm. mais côté économique aussi dañu euh, fàttali di jaar di fàttali que nekk rek aussi euh, le 11 bi ma wax. Euh, mhm. dinañ décorer à titre posthume président chambre de commerce yi nga xam ne ñoo fi njëkkoon nekk te ñu dëddu. Mhm. ñu mel ni ay ñoom euh, Lamine Niang ñoom El Hadj Atou Ndiaye ñoom Alioune Mbaye Pala ñoom Macky Gassama xam nga donc pour ñoom dañ leen ci décorer à titre posthume ak seen famille vraiment njukkal leen donc voilà euh, c'était mon mot de la fin souhaiter vraiment que les assises du Sénégal nekk les meilleures assises yu CPCAF Sénégal jël alors sant RFM aussi ak son patron ak toute l'équipe de RFM euh, merci 44 euh, 44e assemblée générale chambre des commerces chambre consulaire africaine de commerce des pays francophone muy am fii si Ndakaaru 11 ak 12 ñu nekkoon nag tey ci plateau bi euh, ci gannaaw gannaaw prétexte boobu donc àndoon si ak Oumou Thiam Sangaré di secrétaire général euh, chambre commerce bu Thiès. Euh, Mor Seck juriste di yëngu si wàllu assurance moom it euh, baaxoon si émission bi également Mamadou Cissé président chambre de commerce Kédougou maire euh, maire de Kédougou ancien député fervent grand militant de la l'APR merci Vieux Diouf ci réalisation bi excellence suite des programmes sur la TFM